da ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen ngi ci Bawol Info TV mbokk yi nag euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal nag euh, atum jàmm atum deux mille vingt deux bi nekk at mm-hmm. moo xam ne atum naataange doon mbokki yi nag tey Bawol Info dafa séq waxtaan ak euh, ki ngeen jàkkaar lool nii ci image bi di Daba Macky Daba Macky nag bu ngeen déggee tur wi seen xel dina am ci lu mu dem mu nekk responsable politique APR fii ci Touba Daba Macky maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay nuyoo Daba Macky yow nga nekk responsable politique APR. fii ci Touba. Euh, mm-hmm. est-ce que taxawaay bi Daba Macky amoon ci biir APR. est-ce que mm-hmm. taxawaay boobu nga am ba tey ndax dañoo gis ne bëri na mm-hmm. ñu doon jàppale président Macky Sall euh, am na frustration bu am am na ñu noppi am na ñoo xam ne defutuñ benn activité politique yow ban position nga amee jamono ji man moom xañ na ay vidéo yi ma daan def moom laa dafa tutoon mais man dama nekk koo xam ne du ma jàpp bàyyi du ma miin bàyyi man jàpp miin dee laa euh, du ma jóg di défendre première dame du ma jóg di défendre président Macky Sall ndax ñoom dama na a xam waaw ku ci nekk sa xol ak sa yéene ci Sénégal rawatina nag ay seeni njaboot. waaw waaw mais mais ñu mais ñu bari dañuy wax leen président mais ñu bari dañuy wax ne président Macky Sall considération bi mu war a am ci ñi koy jàppale ci Touba dafa des. xam nga président de la république président la. mu danga naan ñi mu fal. ñi nga xam ne ay kilifa lañ. président am fu mu leen teg. te kenn mënul dara. ku mën rek a fi kuñ dimbale moo fi ne. ñooñu nga xam ne dañ leen a jox ay nomination. ñoo war a jàppale. ñi ci suuf. ñi ci suuf itam mën a dem. jàppale ñeneen. ñu fi mën a law yaatu. maanaam maanaam ñi président nommé ñooñu ñoo amulul askan wi njëriñ. ñoom man boog man Daba Macky man waaw. ñi nekk man amul benn ministère. boo xam ne fii la man Daba Macky ma yëkkati samay dossier jël samay kay dugal fa. ah bañ bañ bañ considéré ma. ba am bañ répondre ma na ma ko bëggee. waaw man mais moomu leen man xëccoo may no ah mais ministre de la république la wax nomination yi pour askan bi yëpp la aussi mais waaw mais pour askan wi yëpp la weddi ma ko mais nag bu dee ci askan wi man ci askan wi laa bokk ba pare ne damaa xeexal ñi fi nekk tamit ba yàlla dogal askan wi fal leen te man tam ci askan wi la bokk léegi ñi pré fal ci région bi la wala ci Sénégal gi yëpp ngay wax man de ñi ma xam laa wax man ku dul ba mu des ministre de la femme Ndèye Saly Diop Dieng ko woowee mu wuyu la ci yeneen ci yeneen même ci yeneen. région yi pourtant ñun ñi ñuy woote ci ministère yi nga xam ne dañoo gàddu ay bànqaas. ñun ministère yooyu ñun ñu ngi ci terrain bi am loo xam ne peut-être buñ jotee ministre bi buñ waxee moom lii dina ko mën a décrocher dina ko mën a faj bu dee góom la buy métti ministre bi faj ko avant président ministre yi ak directeur généraux yi ñoom ñoo war a gën a jege suñu classe gi suñu classe gi dem jege askan ndax ñoom fi ñu ne ñun mënuñu faa yegg ñun tam fi ñu ne mënuñu faa yegg ñun ñoo mën a dem ci askan wi di leen di leen satisfaire di jo di laaj seen seen seeni i soxla ak seen i jafe-jafe ñu di ko def ñun ñooy dugg ci saret yi ñun ñooy dox ñoo ñooy dem ci marché yi ñoo ñooy toog ak jigéen ñi di dem ci mbo mbootaay yi di dem ci ngénte yi di dem ci xew yi di déglu seen i kàddu léegi ministre bi mu yow bu la woowee ah man de dégg naa bërëb sangam nangam ak nangam kat man de bu ma sañoon lii ñu faj ko man maa ngeeg ay sëriñ daara man ay sëriñ daara yoo xam ne mille mille chaque jour nag ma waxee ñu koy ñu ñu ñu koy wedd waane olof Ndiaye nee na nit ki balaa nga kaa miin da nga koy wedd di gis bokku ci dañ koy topp lam la wax dëgg la wala du dëgg ba mu la woon la papier mille pe mille sëriñ daara yooyu ay association lañ am seen GIE seen seen kii seen kii seen de am ay ñu valider ko euh, yóbbu ko tribunal bañ reconnaître ko ñu am ay kayit yu valable ñooñu ñu ngi toog ci seen ruq am nañ seeni soxla so ño te ñooñu mi bëri na seen i dossier seen kayit ministre yi moo ko mos a teg seen i te kenn décroché wu leen te pourtant ñooñu ñu ngi toog jàpp seen jàmbur te naroon nañ fee génn am luñ def man maa ci taxaw. ma ne rus leen ma ndax dama am ak ñoom relation boobu ñooñu pourtant lañ naroon def bàyyi nañ ko mais fu fu ma yuuxu foog ne ñooñu dinañ ma mën a wallu ci ñooñu duñ la faale. léegi léegi léegi ministre léegi nag kooku nit kan nan lay liggéeyalee Macky Sall. léegi est-ce que mos ngaa seeti ministre Dame Diop. moom ñëpp nañ daam sama xarit la ña am na ñoo xam ne bu ñu soxlaa daam dañuy woo dañ dañ dañ may woo ne ma dañoo bëgg audience ci daam Diop mais man daam Diop dama koy soxla di ko woo du ma wuyu waaw moom dam Diop ndax nit ki boo ko de boo boo boo fa yóbbu ay kayit amoon na ko bëgg nga dem gis ko dara nga dem ba këram dara nga woo ko dara demaat retourné waat këram bu nga waxtaan ak mu naan dinaa la dégg dinaa la woo da nga maa sànni xeer bu pare soo ko bëgg a wax man kon kooku jëlul décision wax ak yow. léegi est-ce que Dame Diop li tax ñu nommé ko ci ministère bi ak politiquement li mu dëkk ci région bi est-ce que jàpp nga ne ma ngi liggéeyal président Macky Sall. xëy na departement bi moo diis dafa am ñoo xam ne dañoo sës ci moom te dimbale wuñ ko ndax gis na li dal président de la république mooy dal Dame Diop ndax ministre bi day am staff. xanaa wax jooju xanaa wax ko moom. xam nga man Amy Mbacké ragalu ma ko dañuy politique. mais néew ma la Amy Mbacké moo ko moom. néew ma la diw moo ko moom utalu guma kenn ne lii moo ko moom mais parce que président estafam tudduma tur kon nag estafu daam tudduma tur mais dama ne estafu nit li wër daam bëri na ci ñi koy yàqal te duñ ko defaral. mais daam nag ku ko tudd nag tudd daas am ministère ku tudd ministère tudd ab daas ministre moom ki ko gën a jege mooy daas bi. mën na nee ne daas bi la mais tuddalu ma la daas man. d'accord léegi su dee mais dama ne la ñu entourage am ñi ko ci Touba noo ko sa xalaat. ah mën na ne Amy Mbacké laaj foofu man politique am ci Touba man de gisuma ci sama bopp man war na bu ma séenee ci ministère u daam bu ma dee bu ma ko waxee sama soxla bu ca mënul leen nit dina ci taxaw lu mën. da nga koo mës a wax sa soxla da nga koo mës a wax sa soxla. wax naa ko samay soxla parce que nit ki bu bu fekkee ne ñun ñoo bokk département bi buñ bokkee département bi du sama noonu jàmm lañ seet bu ma demee ci ministère ba bu ma ko gisee dinaa ko ne léegi léegi lii laa fi wut. mais mais département mais département Mbacké am na yeneen nomination directeur Jean Gallo Ba ma ngi foofu Bara Gaye ma ngi foofu Cheikh Abdou ministre conseil la ñoo ñëpp. man de képp ku ñu teg fii ci département bi ñu bëri nag nee nañ ma man am na Matar Diop ndax moo ma ko mujjee wax na ma yow daba Macky ku ñu wax nga ne man Macky Sall laa moo tax gars yi duñ la nga dem ci kenn ne maa rangé ci ginnaaw kooku waaw boo ko deful te yàgg ci département bi te kenn du la dimbal mais dama foog ne ku bëgg Macky Sall te nga ñëw fekk fi Daba Macky muy responsable politique authentique ku ne xam ko président Macky Sall foog naa booy dimbale na tàmbalee ci Daba Macky ku fi ma sa jël samay problème samay soxla fajal ma ko amul. léegi Daba Macky élection locale yi est-ce que jàpp nga ne conseil départemental bu Mbacké Matar Diop mën na koo gagné. waaw lu tax lu tax mënu ko gagné nañ ko liggéey du yomb nag mais nañ liggéey rek liggéey la laaj conseil département moom liggéey rek la laaj. waaw mais est ce que ak wàcc ci terrain bi. mais est ce que passé wut frustration bi am ñu bari gedd nañ benn mbokk yaakaar dem ci yeneen coalition. gis nga ñi gedd benn mbokk yaakaar bëri na ñoo xam ne même bu dee président de bu dee présidentiel sax noonu la ñuy def. présidentiel am na ci ay ministre yoo xam ne laax dañ doon dañ doon mel ni yor jikkoy gëléem nekk ci garab gi di xool beneen garab di financer yeneen euh, leader politique dégg nga noonu loolu tam moo nekk ci biir APR dafa am ñoo xam ne biir APR dañoo nekk ci APR parce que ñu contre pouvoir ci kaw bu élection amul dara amul la cay seen wërsëg ñu jël ko bu uti amee ñu ne fa ñukk APR ne nañu dem jëli suñu wërsëg biir APR mais bëgguñu APR toujours dañu contre APR. waaw mais dafa am ay ay. mais nag li ma li tax ma contre li tax ma ma xam ne ñoom ñoo nekk ci dëgg. am na ñoo xam ne gis nañ APR. am authentique yu gëm APR leen dooleel. dañuy gis koo xam ne dafay jóge fële ne damaa bëgg APR damaa bëgg APR ñu dooleel ko bu bopp APR soxlaa mu ne ko fi ñu dem wala mu nekk biir APR moyen yu fi génn ci ñu ñu ñu campagne ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir parti bi mais contre la ñuy campagne. waa d'accord léegi d'abord dañu gis ne bëri nañu bokkoon ñu bokkoon APR même bu dee génn ñu fa dem nañ jàppale ji yeneen coalition ci département Mbacké beneen bi tamit dafa am leader politique yu ñu gisoon ñu actif te gisatuñ leen ku si mel ni Cheikh ku si mel Bali doon def activité politique gis nañ ko noppi na ci mbir mi maam Xari Mbacké ralentir na ku simel ni Paate Jaxate moom maam Xari Mbacké ban maam Xari Mbacké ba suñ Mourtala kooku moom nee na bana waaw léegi Paata Jaxate am na taxawaay bu mu amoon Cissé Lo aussi tax amutut benn non Cissé Lo moom Cissé Lo moom pour moom dafa dafa bàyyi waaw léegi Cissé Lo Cissé Lo bàyyi na maam xarit defut activité politique Cheikh Abdou toog na fi mu toog Cheikh Abdou Cheikh Abdou moom bu toogee warta toog waaw léegi yéen ndax moom bi mu duggee bi mu duggee moom Cheikh Abdou bi mu duggee ci parti bi yàggu yéen moom fu ngeen ni te parti bi te parti bi defal na ko lu rëy te ñu nit jox nañ ko cër parce que kilifa la Mbàkke la sant heure bi ñu wooyoo ñu wuyu ko mais moom it ni war a téye njabootu président Macky Sall authentique yi la téye woon noonu maanaam politique du du sëriñ bi ak taalibe bi taalibe bi ak sëriñ bi a part la terrain politique bi à part la mais boo bëggee jël mbubu mbubu bi téye ko bu ko jël tiiru politique bi eh, téye ko eh. ñoom ñaar mënuñoo ànd dafa fiir. Cheikh Abdou yëfu politique lay def buy def day def politique day def activité politique. mais non mais mais mais da nga maa laaj te man maay politique te noonu laa gis ma laaj loolu laa gis. kon au contraire moom dafa heure bu président soxlaa rek mu jóg jàppale ko ci njabootam ndax defal na ko loo xam ne moom defalu ko Cheikh Abdou defalu ko président ndax Cheikh Abdou ba mu ba mu yëngu léegi ci terrain bi ba bi mu yëngoo yàggul parce que ay réalisation yi mu fi wone barke Dembo Ndiaye réalisation yooyu man maa ma boo xoolee ci YouTube bi lu fi président def lu ne sol naa sama dàll ànd ak sama caméraman wone ko di défendre di défendre euh, réalisation président Macky Sall ci Sénégal rawatina ci Touba Mbacké ndax bi may défendre président Macky Sall fii ci Touba boobu défendre ko jafe na bi may ànd ak président Macky Sall fii ci Touba ànd ak moom jafe na bi may xeexal Macky Sall ci Touba boobu ànd ak xeex ak Macky Sall jafe na. Ah, d'accord léegi mais heure bii la neex. mu yomb yoon bi ratax ku mel ni Cheikh Abdou ñeneen jóg di wane ay réalisation mais man ba mu méttee ñu jël ay réalisation président Macky Sall ne Touba ca kanam moo ko def wala alkan moo ko def man leen Touba ca kanam mu ngi def mais lii ma leen di woon pour liggéeyu président de la République bokkut ak liggéeyu Touba kanam di ko ràññeetle taalibe yi di ko ràññeetle askan wi di wane réalisation di défendre président ci dëkk bi nga xam ne taa yoo dem naa ba fii ci marché Ocass ki ñuy wax Augustin Tine boobu moo nekkoon force des armées ñu bëgg rey fii ci marché Ocass ñu tëj ma ci benn bijoutier ci ku doon attaqué président Macky Sall gisuma fii ci département bi ak ci parti bi kenn ko jaral Macky dee. te man jour boobu yàllaa ma dimbale. mais bu ah? lépp bu loolu lépp passé est que yéen waa Benno Bokk Yaakaar est-ce que saf ngeen waa Touba. mais sa safadi wuñu waa Touba de saf nañ waa Touba ndax Touba duñu contre état xam nga lan la dañ leen a jegewul dañ leen war a jege te jegele nañ leen war a jege mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu fal ñoo war a jàppale ku mel ni daba daba dem jàppale ñeneen ñu ñooñu gis seen bopp. mais yow nit ki bu fekkee dañ laa fal nga dem Dakar kenn du la gis kenn du la dégg boo so bu fekkee ne yow da ngaa bëgg a dóor woo ay nit ñi mobiliser leen ci ay nax kaay leen ñi def nangam wala kaay nangam dafa xew te nangam boobu xewul mbooloo ma nga soxla ñu dajaloo def seen communication ku ne jël ay parole nga ñu médiatiser ko mu jàll nga woo journaliste yi ñu wër la. bind ci sa papier ñu foog ne li ne ci papier bi loolay dëgg fekk ay faux la yi dara génn ci président Macky Sall ba bëggee di am dëgg fii ci département bi di am li mu bëgg day jël ñu ko fa ñoom man ñoom ñu fi nomee ñoom ñëpp laa wax góor jigéen nag a ndaw liñ leen jox ay moyens liñ leen jox man Daba Macky ñoom ci ay moyens man Daba Macky buñ ma ko joxoon bu ma jëlul lépp teg ci sama loxo président Macky Sall dina dina am ay réussite yu bëri ci dëkk bi. d'accord jërëjëf nga ne dama koo gëm dama koo bëgg dama koo jàpp sincère euh, engagé fidèle ci président Macky Sall. voilà jërëjëf Daba Mag ñoo lay sant di la gërëm. merci beaucoup.